Basiir wa ala ilani marse bi Cheikh Mouhamadul Basiir nafaana lahu barakaatihi amiin barsàq jël na waa joom teraanga mooy fegal teel yaraanga barsàq jël na waa ju lakk xam-xam musalaat ab yitteem ci sàkku bamam barsàq jël na waa ju am jaajo am yitte am ngor balay saab saajo ba saq jël na waajam maqaama sang ba fooka kuy borom maqaama balay saaju sapp bamba sapp rasuulullahi may yanan baabu sulaada njombe du fecci wëllëre moo sel moo selal bilaay moo bare moo yaatu moo tawe te moo dib docteur moo daa seera luy bëgg yokk aw toor ku dee di def islaasaatil bayni mu dib liggéeyam faw doona may ni te du ca dàcc mukk daawul naa ko loo gën a muy gën a tey gëm naa ko waa kenn sëñ bu mag bi moo leen boole di leen defal fa mu toll mu doo ale yërëm na ndaw teral na mag ëfal ko ca la mu am te loo ko jox ko jooy war ngir li mu def ci réew mi mënees koo lim arda kal meew mi ñëpp a nu jooy lépp a kaamil ba mag ña fa yor ñëpp a ngi jooy Kaana Albaki ba ngi jooy sunu waaja Buuru Mbàkke ku nekk jaale jooju waay moo tekki suufi juróom yaar asamaa juróom yaar ñëpp a ngi jooy jooju wax du bakkaar dafa ngi jooy yaraa ngi jooy ma muuraa bi lii jooy nañu sëriñ Basiru Gànjaare sax xarul taw bi manki njamaa yi ak garab yi doon na sakki lépp a ngi jooy ngir xaritoo na leen ku sopp ngeen di yoneen la dem nga nga waaru ci weeru diggiw mbar ma muuru ajuma niti fan yu te ak la mujjee julli ji jumaa doy nag waar ba mu demee fekk na mbër may xutba alaaji falilu ku sopp bamba mu daldi dog xutba ba ngir war maal ko ba mu toog mu dellu baa mu man yéem naa ko ma sama yàlla dem suwaale bamba ndegete may tàggoo jaag faaram ba jal suwaare ji xalifa Mustafa sëñ Basiiru Mbàkke naala Mustafa dugg wataam ba xëpp ca pincum Tuuba jëm daaru men nan tey niroo baayam ba jumaay Tuuba dali jooy ba xaaju nga xam ni dootu del si gëm naa waaju xoli waroom Basiiru yëppi waru wari dend bi gooy fi di njanaawi féer féeri ba asamaaw si tawxiin naa saay murid yëpp a jaale cey joojale waay buur na yaari weer yu manqué tuuti ngir ga defal dongo yi yokkul joote te rakki gàmmu la rasulullahi أنبأهم تؤبى بإذن الله التابع جبريل والمخربين بجلس روقة doomi Bamba jey biin bisub dibéer la ñëpp yanda Tuuba ñu naa ko nif ma la bi yaay Ayuba di fukki fan ak benn guddi gi altine lañ war a ñaan fa abroga bis ba ay altine ku sikki sàkke lii leer taarix ba bay limaan ja def ku sappo bamba fii laylatil usnayni rabbuna xara bi sayxina albasiri ma lawr tara fiya bi min saani rabbi ay wafsasi faase saati in tufati siile bayit la def ba muy juróom yaar yal fi des te lu yàgg de nu waar bisim keroog la yóbbu ruuga Tuuba tabar rasuulu la ay génn Tuuba ma bax naa nga fay leer di feera Mbàkke am bu soobee ñëppam ajjana waa ji teeru ruuga hiidu وعمره إلى الجنان du جند من الملائكة الكرام ñoo daan ak Jibril bi teraami di yóbbu ruuga waa arsi sabaa jigéenu huru lay ni ñëpp naa ñu ubbi bunte yofal di woote naa tabbi lay ko mu aajooti Cheikh Moustapha baayam ba ñoo koy teeru ci furusin marfaatin lañ feeru seexe murid yi yëppati aw di jooru jës boo mu xadimaat gëtam gay tuuru soogo gëmul yoral jawaabe bamba jaamaadul badi ji sonna day ba wax na ne ay malaayika ak jibriilum ñoo jël seroog ahmada maa ko woolu yóbbu ko ajana mujjitara suudu ngir sopp gi ma sopp seetal loolu ndaram ku sopp bamba mel nii doomam jaaw ca tànkam ya di xàll yoonam ma ne su koo faral yow noppi ko sopp baban koy toppi lii doy waaji waaru war naa waaru ba xam dinam ci bis ba ne gi guddi lañ fa pencum daaru daaru mi nan xajam yëpp awaaru borofa bincum daaru daaru menan xejam ye yëpp awaaru alal saamake saamake laaj saamake daray see Mustafa moo dana gangu orga gëm na Mustafa moo ko defar di lañ arab ka faafa borom basiira la siyaar na ko am na hinaaya te jagul jinaaya moo borom mbakke mooy borom wilaaya mooy dooy Mustafa setub Seex Bamba mooy yaatu moo tabe taatan yan ba seeya wa teew kew nañu su góolim يحمد خبعا وعاد صف خادم تهون فسيخ أمد بل تهون فأغركم جسبت بل سيحمود مامون يون فأغركم يا سيحمود جبه تهون فأجوهم يا doomi sëñ bu mag bi ñëpp a booro bisub keroog tey la ko ñëw ci mbooro si Abdou Khadir Mbacke moo ko ñaanal sappee di tànneef ku la di laajal waxtu robam Bamba ak Rasuulu ak saaba ya ak yonen ak Jibriilu ñoom ñëpp teew nañu biir baari ànd ak muhaajiriina wal ansaari ca booba guddi lañ ko dal di sengal ku ba siyaar buur yàlla dal kuy jéggal fekk Bamba defan fa min xabli jay sesin mu jublu makka suul lu fa gaali téere dafa xamtu laajal ko xam jiwa sore naag fortu waxtu mbaalu manki tuuti lañ ko rob ca guddi neen ndaw joote ñeneen di dellu seeni yu bari gànnaar dab yi fat cay yàlla lii doy waar yoonu murit fitam wa dem muy rab-rabi ngir xam ni gent na rangoon yay sab-sabi dindam bi lépp maase mel ni gent ten xamatul soxlaam te boobee jant murit la mbaab xaajir la mbaab siijaan la ñëpp a ko jooy ngir yàlla mbaa ngir la cey yàlla laa ilaaha illallaahu muhammadun arsalahu lillaahu salaa wa sallama alil baaxi wa alihi wa sabi at baaxi aduna war nanu caamawum seesin delooraat murid yaama desesin delooraat no ren caamawum seesi warami sooy naagu mu daldi dellu si ndeer sëñ Basiru sëñ Basiru yaale ku yeboon faatu ñu dal lay jaale bu gore du am tee kon du faatu ngir ngor ga raw nam ci li ayaa bi tey mu def tey mu jaar ci soosi mu gëti gwen yëpp moo raw soosi taalif nay téere tabax nay jàkka sanc na ay njiyandi yu mel ni makka alim la abid la murid saadex la borom basiira la te mbër kaamil la aafis la am na ngërëmal Seex Bamba musula juyoo su na ngey anan ba am na ngërëm ca booba fum fu ma sa tollu teew na fa ba cal ba mbër ku tarbiya tawal ko yabal ko saalum pagacaar ña booro mu jàll wey sanju fa tuubaak saalum fumma sari andu ña fa ti aw ni maalum def na fa kawlax kër yu mel ni tuuba seng fa jàkka far ko tudde def na fa ay kër lu ko jiitu moo xam sëñ Basiiru Mbàkke xawma maasam mbaakol ba biir Kajoor ba jàll njaambur foo tuddee aw turam ñu naa mooy gor ku nekk naa la si Basiir nee na ma moo gën a daj jamono waar na ma góor a jigéen defal na leen taraanga dalal na seeni xel amul yaraanga tabax na ay kër ci way wii ci réew mi foofu dem ci gal na yoon wi def na xalifa ngir ca nekk baayam la jóg ni sax di am ay gaayam Cheikh Bamba féetale ko wàllu Saalum jébbal ko am ni Moustapha ab taawam baam di Moustapha dafeeb xalifa moo doon loxoom fu masa ti aw mu teew fa ba magi bas siiw na ci réewum Sénégal ci turam di Moustapha nihma rijaal masidi fanila dafeeb xalifa moo ya daan Jurbel jeefa ku nekk am na sa ngërëm bil jahri lew fi sannihi bi xayri nukri mu taarixal Seex Bamba mu am mahraja leeral na siira tuba mu am daraja tagg na ma ko ak tadi nas man yufiid min baadi bismillahi seet ko yow muriid kilay jaabi Bamba am na ay seere yamal xiyaam waaju ko sopp maare waaju ko noonu def defub Cheikh Bamba nga noonu ngir moo tax moo tax yéen ba seere am na ci góoru ku la hidaaya Cheikh Basiiru Mbàkke ba Bamba ni ay Jolof sëriñ bi ko naa ko Basiiru loo ko jox ma gis ko amal naa deeyu genn Saalum yeesu sëriñ Basiiru jëm ca baayam Cheikh Bamba sax di man yéen ko delloo ah, jox ko ba ci jooju waay do soolu mooy man tamaa moom fu ngeen ko seeroo ah, gis ngeen ma dong yëpp bokk waaru lu yee fukk ak juróom la am wusoolu sëñ Basiru Mbàkke maa ko wóolu di aarif Bamba dal koy jiital pexem borom Tuubaa bu leen ko jootal taaram ba semmal na doon yankooba setal yi yàlla nañu faw xañoon yanqoo aba dekkal na paraxaan na barba siggal na soxna jaara dekkal taal ba na la yor tawal na jéeri tawal na géej birani lépp bi ira leer ni dom faagu agis mori aara boole tabe ñeme ba mel ni gar la وبكم شريعة المتعارعة jiit lu oo mbubbum xaqiiqatul munawara saa yu julli ee bay digle daf koy gàttal te lépp jub daaw carax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jortu ca ab julli it lu dul lu baax moo dégtu boroomu jagle la te daawul jaglu woyof lu ak tooxlu ab wakiir lu moo doon mbiram te ku ko tooñ mu jéggal ku doon mu jokk la faxat mu fi xel daawul digal nit ña fa daa siyaare lu ragal yàlla ak jubóo tay maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoo an wàllu ako laaj ma jox la fu ni galeegi mbar mu raaw xaataali am tasaaw ba jiit fay yadaali itam jaan te luxumaan min qablu moom lañu ko jox bi sanga daala kiilu kileeri Seex Bamba la naan ba jiijal dugal na aw nitam ba ñépp feesal basiiru faati ma du maam semal naa ña jiitu wan gaa yi dawal ba wey na basiiru faati ma du maam semal naa ña jiitu wan gaa yi dawal ba wey na ku mel ni moom dootu saam baaba daa مدن برمبر مدن أحمد حلما بلا تعلم لبامبا waxan sëriñ bi xeela jaaji ak bamba maa la tuuti ci biram nga waaru ak meloom ngaram gisu mu taaru fa ma sa tooge ñaari jublu xeb la tey mi ngi ni weer ko am xaram la am magal ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal fajal ko ay yitteem ku weddi laajal durus kitaabu laay lay fanaane waxtaane sange mbàkke lay waxtaane ma deeleeru koor sëñ Basiiro maa ko deeti gunga ga teeru di jàngloo xasaay daam tey déglu njàng ma tey ñaaxaate moo seranglu ma jooy na weeru koor sëñ Basiiru moo ko la dee di gunge ka waaru ay yoon ma jooy la alxuraan sëñ Basiiru moo ko la dee jàng yaa ka waaru ay yoon i yoon ci gan guddi magal seen ñépp mbir soo demul yow laajal ma jooy la taalifi sëriñ Tuubaa na doom ja doon ba asiinan wa baana jagle yaam ci diggam ak baayam mu ni su ko lim waaye jël na yan ba bamba ba jox daarul menan bil marwi xamal ko boo dee tax mu leeral yu am yu foofee la bambay waaje war ci gaaram ilal jinaani ab xibaar la moo xam ab li safinatan bikun lil janna min daaratil min an yaasal min na sëñ Tuubaa ne yàlla may ma gaal gu yeb dongo yi ba mel ne xaru pepp waaye na dexee daaru min an sëñ bi si nekk ci boppam mu jëmaa jenaan ab li safinatan bikun lil janna من دارس المنن ياسع منا أري غريمة بكل الجماع من دارس المنن ياسع منا بريك فلمني سكو وقتاني